capitaine Touré démissionné na ci li nga xam ne moo di conseiller en charge de la sécurité urbaine ci mairie bu Dakar jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci suñu chaîne bi nga xam ne moo di IYAT TV ñu ngi leen nuyu bu baax di rafetlu nag topp gi ngeen topp ci suñuy programme Euh, Seydina Omar Touré ñu gën koo xam ci capitaine Touré démissionné na ci li nga xam ne moo di conseiller en charge de la sécurité urbaine ci mairie bu Dakar loolu nag moom moo ko fësal ci li nga xam ne moo di page Facebook am mu ne nag dogal bu ni mel lu tax mu jël ko mooy engagement bi nga xam ne amee na ko jamono ji ji politique kenn ku ne xam ne nag moom Seydina Omar Touré ñu gën koo xam ci capitaine Touré moom candidat la à la ci élection yi ñu dëgmal moo tax nag bu bees boobu nekk conseiller en charge de la sécurité urbaine foofee ca mairie bu Dakar moo tax mu démissionné mu ne nag lettre de démission am na ko maire bu Dakar Barthélémy Dias nekki démb ci talaata ji leneen loo xam ne xamle na ko nag moom capitaine Touré mooy dafa wax ne mu ngi sant di gërëm maire bu Dakar Barthélémy Dias ci ànd bi nga xam ne ànd nañ ko mu ne nag ànd bu rafet la waaye sant na gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci mairie bu Dakar te doon liggéeyandoo ak moom kon xibaar bi mooy ki nga xam ne moo di capitaine Touré démissionné ci postam bi nga xam ne moom la amee woon ci ville bu Dakar charge de la sécurité urbaine jamono ji nekkatu ko li ko waral mooy dafa doon candidat ci élection yi ñu élection yi ñu dëgmal di présidentielle yu 2024 al baax